dañuy wax coow gis nga coow lu mën a doon si àdduna mën naa fay ba nga xam ne ne wax dootul am gis nga nit am na loo xam ne ne saa bu ko defee ba coow li bari lool lool lool bu defee loolu coow loolu ñépp koy fàtte dangay romb nit sax mu xamal la dara waaye du ko wax waaye du ubbi gémmiñam nga ndax lan ndax yow yow yaa fay coow li moo tax coow dañ koy fay si lu gaaw Sénégal gi ñoo ñu xa ñu bari xam nan coow li day bari bari bari bari wax ji bari waaye dafa am ñoo xam ne ne dañuy fay coow li am ñoo xam ne ne duñ bëgg mukk coow am ci réew mi saabu bu yëngu-yëngu amee rek am na ñoo xam ne fu ñuy jaar pour lépp fay ndax wallaahi am na loo xam ne ne tey boo ko bindee coow loo bëgg mu fay day fay boo lekkoon milliard walla nga def njaaxum wala lu mën a doon euh, buñ la ko bindalee nga am foo ko def lu ko féeg loolu dañut kenn du ŋàng si wàllu fay coow waaye nag dafa am yoo xam ne ne di ko liggéeyal nit ki am nit ñoo xam ne ne nit ñoo xam ne nit ñu ñeme yàlla la nit ñoo xamee ne ne euh, térian nit ñoo xam ne ne wor nit ñoo ne euh, teg dil nit ñoo xam ne lekk alalu jàmbur ba bi nga xamee ne ne da ngay koy bindal nga sangoo ko ci place bi place boobu mën nga fa lekk milliard kenn du la fa mën a jële kenn du la fa mën a dàq waaye gis nga loolu lépp dafa am lu ko gën muy wàllu jub nit ki boo jubee ci lépp dafay normal ndax ñun ndomba gi ni defar rekk bon la ko defaree la ba nga takk ndomba googu lépp looy doxi yàlla daan la ko jox te da am kaaraange da nga ubbeeku waaye nit ki war naa daw lu bari ak digganteem ak boroomam tey nit ki yor nga li nga xamee ne ne moo lay aar yor nga li nga xam ne ne kaaraange la si yow li nga xam ne ne daf lay ubbi da ngay moytu di def yenn yi waaye daal foo wàllu fay coow daal lan nu wax fii si Sénégal diggante xew-xew bu fi am muy coow li lépp mën naa fay waaw loolu lépp si ndimbalu suñu boroom di ñaan nag Macky Sall mi nga xam ne ne moo yor kàddu réew mi mooy suñu président di ko ñaan euh, mu génn dimbali ndaw ñi mu génn wax ak ndaw ndaw ñi lépp fajuwaat lépp coow du amaat incha allahu rabbi Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad borom sarax yi la ñu ngi leen di jéggalu bu baax te wax nag sur réew mi neen génnee tàndarma ak ndox mu sedd saraxe ko incha allah